so so جزاء من برز أسربك فكلما أبقى وزوك سربك إلى الذين كفروا وامتنعوا من توبة روى جزاء ما سنه بطنكم سكنك القريب والكل منهم من صدير الشارب للمسلمين ولكل مسلمات نور الذي أذب على الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مقلدون بناؤهم تووا بلا سلاب والكل بن بصر ذي القلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه والملك بناؤهم يعلو وليس ينزفل أمام بارس علي فمن زفل بالله آمنوا وأسلموا معاه وتصنوا لوجه باق قمقا لك ومن خالفوك نوغاك أعوينني لك بعي فسيقا بجاي يا خير هاد سيقا اقهر به لي كل من تبلغ وليعب مقجل سيل جلخا بجاي ليدا يدخدخا يا من قبلت كل من تدخدخا كفيتني خياب ما تجخجخ من الليالي فسكرت فجخا كفيتني خياب ما تجخجخ من الليالي فسكرت فجخا هوتاني الأزهى والوسخى وتقبل الله تبارك وتعالى مني قصيدتي عاسعي بقدر بقائه وجمالي بلا مكر ولا قرار ولا استجراج والله على ما نقول وكيل wallahu ala ma naqulu wakilu bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima qala seyxu ahmadul xadim alay ridal mawlal baaxil xadim xaalas seyxu ahmadul xadim alay ridal mawlal baaxil xadim xaalas seyxu ahmadul xadim alay ridal mawlal baaqil xadim asil abyaata li tuulil humri mudda xayaati mudda xayaati asaatatu lil wasa yaa xayra munin قد وهبت توسعا مدعياتي ساتت للوسع يا خير مؤمن قد وهبت توسعا ناجيتك اللهم سا رجاي ناجيتك اللهم سا رجاي منك طوال الهم رسان نجاي أتل حياتي بدوامنا فيا عبدا خديما بالخيار دافيا واليوم ما سرت في دنياي من المنافي وفي أخرايا ñoo ma wax bis bi ma jóge Touba kon su ma toogee minuit ba léegi te wanewuma sama cofeel ci bis bi damay des moo tax ma ni la lu ma ci tënk baax na ndax waaxum giléem xajul ci waañ te li duuf ci nag wi xajul ci cin li te sunu baay bii nga xam ni ñoo taxawal bis bi mat na sëkk li mu doon ndax daa gis sëriñ tubaa te gis sëriñ tubaa nag te amul màndarga loola munta ne màndarga mi mooy sëñ Touba daa teew ndakaaru tombeeg bisam sëñ Muntaxa ku ne xam na ni waxuma la bis bii waaye semaine bii bépp mi ngi Dakar ca kër sëñ Basiiru ga ca këram ga Géejawaay mu jox Masaalikul Jinaan bis bii muy bisub ajjuma bi gën ci bis yi dajeeg bisub Baay Moor kon gis-gis Sëriñ Tuubaa dëgg la rawatina nag édition bii su ma juumul lu yàgg dëgg la ba fi Baay Moor jóge ba léegi ñi ngi koy def dara sikku ci te daa yokk kon sunu ñëwee teew te fa fa wanuñu ci sunu yéene mel ni bokkunu ci kër gi wala bis bi dañuy manqué te Cheikh Ibra Fall nee na ku lu dul lenn denc ko ci barab tëdd ba guddi dégg yuuxu jib fa bu la fa kenn jëkk te ku la woo ci sëriñ Touba dalaa dimbali sëñ Touba Cheikh Massamba Diarra Mbaye ca Ndar moo ko ni sa waay du ñee waayi keneen sa yëf gën yëfi keneen kenn du la gëm di gëm leneen te sëñ Touba ñetti mbir rekk la savoir force finance Cheikh Ahmad Bamba moo ni ca Daaru Salaam gi nga xam ni fa la Baay Moor bokk ndax kër gee boo xoolee da ngay gis kër Daaru Salaam dani ba ma alal wuyoo seexanta laa ko jox borom dërëm ak ngërëm borom jànnati lal jànnati ba ma doole wuyoo Seex Ibra Faal laa ko jox doolee Faal ba ma xam-xam wuyoo Ceerno Ibra Faati laa ko jox bamba ko ne baa ba ko bàyyil ceernoo rawoon ca daara jabaari saqaay kon ci ñetti was salaatu wa salaam ala rasulillahi ba déwén yasuru rasulallah yuxaati bi mawlidi yaduumu lana bisran يفي غير مولدنا waraani laa yikun la durri bi jaahi man lahu daara xaatidun dalaxil mursidinaat muhammadu al muxtaar du laa xalqa mislahu wa laysa yaji mislul له نعم سيدنا مرامي من المولى حتاني بلا أزل بجاي سفيه لا لمينا محمدنا وسرت برب الأرض سيابدا له به وما زال قلبي بي إذا زاد غيدنا لغير البرايا من خلام بزارته ولي غار تقسيزا بين وستتدنا دعني لا يحيى إذا زار كونه bi xayril wara sarfan hawa kulla suuda dinaan hawa nantaalil haa wal haa xudiiruna bi ixtaamijil husil hada kulla musa dinaan faqat قصيد الكرام قصيد الكرام قصيد الكرام قصيد الكرام فر قصيد الكرام ولتقاد أبدا خير مرامي هديتي مخجلة كل ملك كان مناسيا وحساء عليك ما توجه نسعار الله il est bila ila il est bila ila la ilaha illa allah ya sayyidan fil maali xal sarwaaw wa ya mooy ban fuaddi dar maswaaw ini ataytu iloo jilaahi saa'irakum abxi bi nay la ma abxi bi nay la ma ardo nay la ma nuy la ma nuy la ma nuy la ma jox waaw nuy la ma nuy la ma nuy la ma jasaaka yaa xillu ibrahima mawlaaka xërin jasa wal mana xërin jasa wal mana wal mana wal mana xërin jasa wal mana xërin jasa أولاك فاعلم بأنك عند سردا أبدا وسع كريمك في دنيا وهراك فدم على صدقي والخلاص مجهدا في السر والجهل كيتا ما كيتا ما مساياك كيتا ما مساياك كيت مو كيت مو مساياك حمد وشكر لمن كل بشارة لور دون دون سقط عند سرسارة لو سنائي وردوان بلا سقط مسخادنا من بني دايما أنصارا لله كل داء بار مكرمة من هتان وفيح أجمن سراح إن الذين إله إن الذين إله سرسار خلق صدا إن الذين إله سرسار خلق صدا إن الذين إله سرسار خلق صدا سرسارخا سرسارخا سرسارخا قصدا زيارة فارقا دارين أو سارا يا مصطفى يا منتقى يا متبى مصطفى يا متبى يا متبى يا مصطفى يا مصطفى يا منتقى يا متبى مصطفى يا مصطفى من هدى يا مصطفى يا منتقى يا متبى مصطفى يا مصطفى هدى يا مصطفى يا منتخى يا متبى مصطفى يا منتخى من هدى يا مصطفى يا منتخى يا متبى مصطفى يا منتخى من هدى salaam alayka man hadaaka man hadaaka yal na nu siyaare ji salaam alayka man hadaaka wa tabaaka man hadaaka yàlla nu siyaare ji salaa alayka man hadaaka wa tabaas alayka man hadaaka yàlla nu siyaare ji salaa alayka man hadaaka wa tabaas alayka مسلما عليك في الآل كرام وصحبك الخر وقاد المرام مسلما عليك في الآل كرام كالخر وقاد يا الولي سواي النحيا وسخاء كفو وما يغمي